ñaan bi kum njiiti réew mi Macky Sall ci xay jafe-jafe yu dul du jeex problème yu mag ci la nekk allah te mooy yéene kaay moo ñu xamal ne jàpp leen réewum Sénégal mi ngi ci ay jafe-jafe coowal suuf lang ne fi xuus këpp kees wàllu labaj xaalisu askan wi lii la Macky di jànkuwante ñu ne déetawaay ñi ko wër jege ko ñàkk yar gu mat sëkk la ñuy wane fi mu toll nii fekk ci mbas mi ci réew mi ba tax yéene kaay bi jàpp ne géeju problème ci la Macky tàbbi labal la ñuy wax kay mu mel ni nag yëf yi maanaam Macky munut ci dara pour lijjanti jafe-jafe yi nekk ci réew mi si di quotidien na ko du mën a la déedde ndax ña ko war dimbale waa APR ñoomi neen ña ngay rayante tamante ndëmb seen biir ak suliwante mboot plan Sénégal émergent bi fi ni amul xaalis bu mu ko financé mooy mandat bu mujj wala nekkul bu mujj waaye lu ci mënti doon saf dajaloo di nasa ko nocci dogal buñ jërëk yóbbu ca pale ba Macky jëfee ko bokk na ca ñooñu nag Mbaye Ndiaye Mimi Touré ak ñeneen fañ koy dimbale ñi dimbaliwut Macky dëgg nag mooy waa DER yu ñu jox milliards yu bëri ngir ñu financer ndaw ñi ndekete yoo xam nga ci ñu nekk dem luyee ay xar waxuma jënd de luyee xar yu bari ci tabaski bi di ko naxee Macky naan ñoo ko jënd ak jox na ndaw yi nii naa fekk fa ñuy tappale direct news moo ñu ko xamal faneen fu tappale xam mooy commune bu Sindia yéet te coowal suuf xapp ak lakk la du fa xaaj du jeex gis nga coowal Babacar Ngom Sedima ak ndengaleere ndeke moo ci gën tuuti am na yeneen yu ko gën a garaaw yaaw seetal juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn hectare moom lañ jëlee ca forêt bu Bandia ne yoo yaay fañ fay def procès tabax fa ay dëkkuwaay yu nguur gi waaye xam nga gars fu fuñ mujj fañ ko mujj lotissé jaay ko pasar pasare suuf sa lañu def ay nit ñu siiw nag ak ay homme d'affaires jënd nañ ca terrain ya les ko xamal la mu ñu xamal moom info yéen e kaay mooy ne chambre de commerce bu Ndakaaru Ndakaaru waa OFNAC yi ña nga ca seeni tànk mbir yu garaaw ci wàllu sàcc oto ger këppu kees wu am ca chambre de commerce bu Ndakaaru 2016 ba léegi benn homme d'affaires bi ñuy wax Birahim Wane moo leen plainte ba gaa ñi déglu nañ ko ci déglu njiit réew mi Macky mooy Diouf Sarr Macky nee ko yaag ñi ngay liggéey ñaax leen askan wi ñu xam ne corona baa ngi fi te ñu moytu jël matuwaay la Soleil yéen a kaay ñu ko xamal critique yéen a kaay na ko voilà monsieur le sa ministre moom la nu bu gën a xarañ ci dendu Afrique ci wàllu wér gi yaram danañ ko takkal raaya bi ca li tax ñu jox ko ko mooy ni mu yoree corona bi lépp a jaar yoon enquête yéen e kaay mel ni ku naan leen bay leen seen yëfu focc affaire caaxaan-caaxaan yi yéen Diouf Sarr corona bi Sénégal ay problème kese daraa ci leeru jafe-jafe yi du xaddu li ci bon ëpp lu baax ñu leen di or waandaa di leen nax ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wér ñoom ci seen bopp ñoo ñaawlu ni ñu yoree corona bi ci Sénégal la mu ñaawlu moom tee mooy kaay ci corona bi mooy fay gën a wàllaate daj na réew mi presque léegi weesu nañu juróom-ñeenti junne ñu am corona vox populi na ko yegg nañ tamit ci téeméer juróom-ñaar fukk fi ray moo taxit Pape Demba Demba bi tey njiital Senelec mook njiital port bu Ndakaaru boole leen seen doole fas yéen a door opération takkal sa masque askan mucc ci corona bi nay leer li leerut l'observateur ba tax mu xëy di ko laajte mooy ne Moustapha Cissé Lo ginnaaw bu mu fi daggee saaf këtt saaga nday yu bonte ñaaw jëmale ko ci yaxam mbay yaxam porté na ko plainte ca gendarmerie waaye ba léegi Moustapha Cissé Lo wuy juraa gendarmerie léegi loo lan moo tax source ay yéen a kaay moom itamit lam xamut mooy xana lan mooy ndayu ay entreprise yoo xam ne ña moom bitim réew lañ dëkk ñëw suñu réew mi Sénégal ñu pasar pasare suñ suuf si jox leen ko ci anam gu jéggi dayoo foog nga ne loolu rafet na yéen laneen lu rafetu lu nar a am Sénégal mooy njëgu mburu bi boulangerie yi defarkati mburu yi nee nañ fañ koy yokk léegi baguette bi deux lañ koy jaayee wal fajiri yéen e kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom les éco yéen e kaay mooy ne maître El Hadj Diouf fa kalaama rakkam ci yoon ñu dem ca tribunal ba di leen attee ku nekk sa jabar toog ca salle d'attente ba ngir xaar ñu woo leen ñu nekk ay seeda ci problème bi dox seen diggante léegi ñaari jabaree nag fañ toog ooguñ leen fa lañ nekk di këttalante ay saagay nday xastewante wax ju ñaaw quotidien mooy yéen a kaay ko maître El Hadji Diouf kay fa mujj sax far tëj rakkam ja ka ñu naral tëj kaso nag boo mooy tuut mooy benn sandarma bu dugg ci ay tooxi doona def lu dul yoon ñu jàpp ko mu dem ca dig ñu di ko déglu mu far daanu fa malaise na xëlas ci suuf ñu yéen a yóbbu hôpital vox populi moo ñu ko xamal ba te yéen a kaay bi di ñu xamal ne ñetti xale yu góor yi jàppoon xale bu jigéen bi nga xam ne fa am feebaru xel daanu ñuy làmb yaram wa naan ko sàcc nga ba pare di sàcc bànneex dugal ko ci réseaux sociaux yi ñoom ñëpp nag jàpp nañ leen ma jàpp stade yéen a kaay ak record fekk fa mbégte Sadio Mané ginnaaw buñ bu xëy Chelsea démbu fañ leen a jox kopp ba kub ba ndax jël neen championnat ba ma jël sunu lamb yéen a kaay fekk fa combat Gris Bordeaux Balla Gaye 2 Eumeu Sène Bombardier Garga Sa Thiès Tapha Tine booy Niang 2 combat yi yëpp taxawal nañ leen waaye ndekete yoo amul kenn ku jot avance maanaam ay waxu kese la la mu ñu wax moom lii yéen a mooy na xale yu ndaw yi ñu jàpp tëj kaso te ñu leen di jegele ak mag ña ca kaso ga loolu mën la leen a jural ay mbir yu garaaw li garaaw dëgg nag boole ci métti lool mooy xab soxna boo xam ne fa wannu lor moo tëdd ca néegam rek dal ba battar bi ku daanu ca kawam ndaw sa ndeysaan doxee fa faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ci kër ma saar turbine yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom réew mi yéen a kaay mooy hab camion bu xamut frein fa saaraar rañaan tampon nappaaje ray ab marchand ambulant ak ñaari xale yu am ñetti at ak juróom-ñaari at yëf yaa nga amee ca yoof juróomi nit am ca cay gaañu-gaañu ñi nar a gaañu nag ci tabaski gi mooy borom kër yu bari ah dëkk bi fi mu toll ni fa korona xaalis waaye xam na ñoo xam ne seen leen jàmm nijaay xar mu rëy te ponkal laa soxla nga yeew ko ci buntu kër gi l'observateur na benn waay daal fa dem jël otoom tey la ko jaaykatu xar na ko jox ma xaru laadum buy jar un million cinq cent ma yóbbul ko sama jabar saa bu ma xamee fay la jaaykatu xar ba na ko lii métti na di mu na ko su ma ko deful sama jabar xam nga lu ma waxam andil ma xaru laadum bu cher te ponkal wala nga may ma sama baat sëy bi tas aay waa ma ne ayow kon laadum ngay sëyee lépp ngir puukare woog wanewu léegi bu tabaski bi jeexee sa jëkkër ñàkk otom ba di dox joxe dépense ko nga teg ko wàcce soxna yërëm leen seen borom kër yi ngir yàlla tabaski sunna mu akkada la ku ko amul wàcc na la te béy sax mën na tabaski